ci turu sëriñ bi ñu ngi lay jotalee ay kàddu kàddu sax xanaa dafa dafa xër rek waaye li mu wax léegi doy sëkk lu ci teg dara ndax dégg nga mu ne maa ngi lay ñaanal lépp loo bëgg sunu borom may la kàttan ba nga def ko du ko bëgg foog naa kàddu foog naa loolu nag moom mënu su ko weesu mu am mbégte lool nag ci sa teewaay bii mbégte moom itam lu bare bare bari sabab ko muy ca muy boole goo xam ne boole gu yàgg la Cheikh Abdoulaye itam bi nga xam ne njabar Serigne Touba gépp jokk nañ Cheikh Moustapha bu noppi moom yëmul ca loola daa dem jël lëm jële ci sëñ ci sëñ bi lépp ñoo jox ko Cheikh Moustapha jébbalaat ko boppam ak mbooleem kum jaboote ci mbaakol loolu di dox di dox ba ci diggante sëñ Blaat ak sëñ Cheikh Mbacké loolu dem sëñ bii moom nett ci làmmiñam ne ma keroog ba guddi gi sëñ Abdou nekkee xalifa ca fañ doon dencee Cheikh Mouhamadou Fadal nee na ko fële ko sëriñ Cheikh joxe loxo ne ko maa ngi disposition loolu sëñ moom ko nettali kon manees na ne manees moo njëkk jokk sax sëñ Abdou laat ndax boobu ndax boo ndax boobu ñëwaatagul ci kër gi gunge ko ànd ak moom ca noonee bi mu demee itam ba suñu boroom indi fi sa wajur baax wa moom itam diggam ak seen la am na fi loo xam ne ñun ñu sax dund nañ ko ndax ku mës ñëw fii ci kër gi di gane seen laat sëñ Mbàkke lay woo muy président Abdou Diouf muy Seexu ture ak gépp gan gu mu fonk fi daal ñëw ku ne rek moom la yow mu ñëw taxawu ko maa ngi euh, soxna may ci bopp moom a nettali ne ma dafa ñëw fii ci kër gi fekk fi sëñ bi nee na bi mu dikkee fekk fi ay dàll yu rafet ñu ne ko sëñ bi. mu ne soxna ma daal yi xamul moo ko doyee soxna ni ko ah déedéet mu ne ko sa sët ba laa ko fi bàyyil bu ñëwee ma jox ko ko kon loolu fa ak cofeel foofu la mënoon a yem moom itam diggam ak sëñ Mbacke bis bu set mu koy wax wax na la ko léegi defoon ko wayjur defoon ko xarit sunu borom boole woon leen man mi la njëkk man mi la mujj yónni ci sëñ Mouhamed keroog ba ma ko fekkee Taïf ba ma ko waxee la ma ko wax ba noppi sëñ bi dana yëkkat di jooy. ne ma Cheikh Abdou day seigne sidi def ma def lo xam mënu ma fay ndax yonne ci na ci man ne ma lepp lu nar dal ci sa kaw yalla dal ci sama kaw bo bad nag mënu fay kon bobu digënté digënté bu sori la lolé nak moy li nga xéñtu ba kon dañuy def rek ñaanal la pas-pas bobu nga am ngir motli yene nga am ne sëñ Tuubaa ak ci yow sunu borom katnal la nga defee ko na ko bëggee nga xam ne daal moom mu ngi fii sa maamo sa wayjura sa sëriña sa xarita wéeruwaay la ci yow kon moom foog naa ni foofu yam ci moom yaa fa yebale sa bopp dégg nga li ma la wax léegi fee ci biir amul yemukaay loolu moo ko waxal boppam nee léegi damay toog ba mu neex ma rek mu wol lu la ñëw rees ba ñëwal añ si kon diggante bi foofu làgg te war nga ko pas-pas boo xam te jiitam ci loo xam ne seere naa ko foog naa loola ñi koy def bëriwut jëru sax ñu koy wax ndax loolu mbirum biir la waaye biir na ma loolu tax na tey ji mu gën a jàpp ndax xam ne fi nga toll Sëriñ Tuubaa ak pas-pas bi nga xamante ni moom nga moom nga ëmb kon yàlla na yàlla yàggal seen diggante moom itam ñu koy ñaanal rek mu yàgg fi lool ki dara gi Sëriñ Tuubaa kon daal xañ na loolu mooy kaddu yi li ñu yéenoon ëpp na loolu moom itam li mu yéene ëpp na loolu waaye dañuy dañuy feeñal rek kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaatu wasalaamu ala raufi rahim barakatu cheikh al xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu sëriñ bi noo ngi lay jottali ab nuyoo bu bàyyi ko ci cheikh Mamadou Moustapha mii sa sët bi mu jot loonu kaddu yoo xam ne kaddu yu mat la kaddu yu jot la itam kaddu yu yéene la yoo xam ne leer na ma ci xolam la ko tibbe nee na mi ngi lay siyaare bu baax nee na it mi ngi sant yàlla sunu borom di sant sëñ Tuubaa mi ko defal tawféex féexi mu yendu ci barab bi tey yendu ak yow ndax la ko waral daf ko nee na muy diggante boo xam ne sëñ Tuubaa kese la woon Cheikh Abdoulaye tit jëloon léppam jox ko sëñ Moudou Moustapha ba kaamilu alxuraan bi njëkk bind sax wax na ni Cheikh Moussa lañ ko jox. Cheikh Moussa def ci mom lu bari waye it fonkoon Sëñ lol, lol, fenn fu nek mu nek fa ak mom Cheikh Abdou Lahad bekk lol ko lool Jaxate wax na way bis daf ko wax ne ko topal sa mag di wi ci ay ndigalam ndax mag ju mat mag la mat ñep mat ñep sëriñ te du wor loolu la ko waxoon sëñ Modou Moussa topal sa mustafa te wi ci ay ndigalam ndax mag ju mat mag lat mat ñëpp serigne te du war blat Blaat loolu la defoon serigne blat amna na serigne sëñ way amna am serigne ngërëmal sëñ ken Musaa kenn natt bi loolu serigne Mudu Musaa gërëm nako ko bu wéré wéré wéré la ca dolli ko lépp mooy wax serigne cheikh Abdou ji de ak serigne Ahmadou Mbacke gayne fatna di lu yaatu lo xani bu doon lu ñuy lu xut lu yag lay doon digantem ak serigne mohammed mi nga xadi moy wajiru mom mi serigne bi da wax ne boo gisee mu sor jataay bi lool te tëyu ko tëye goo xam ne tëy biir la goo xam ne lu muy yëg la mooy dafa ko wóor tam mën a wat ne yow ak sëñ Mbacke Soxna Lo kenn ku ci nekk ka ca des la gënal sa morom kenn ku ne ka ca des la gënal sa bopp sëñ Mohamed moo la gënaloon sa bopp sëñ Mohamed yaa gënaloon boppam foofu ngeen àggoon waaw kenn ku ne ci yéen ñaar àggoon ngeen ci ku ci ne ka ca des moo moo gënal keneen ke boppam ngeen seq ko bu yëfi biir yoo xam ne seere sa sëñ Tuubaa dong moo ko man sëñ Tuubaa képp képp moo xam si diggante sëñ Mbacke waaw sëñ Touba képp moo xam diggante sëñ Sidi ak sëñ Mbacke waaw la leen seq loolu nag la sëñ bi sëñ Moussa mii di fetli si loolee la bëgg nag yokk ko taxawu ko doxal ko la ñuy wax ne alal xalafi an yasuuna asaara salaf képp koo xam ne da nga fee ñu teg mbir ci sa loxo di la ko wattuloo sëñ bi nee na yaar daf caa baax te loolu bëgg na nga dimbali ko ci loolu ñaan ko dara mooy lañ lañ lay wattuloo da nga koo war a sàmm ba dara du ci sikk waaye da nga koo war a yokk ba xamoon dim xam ne yokk na loolu moo la jotaay bi. dara du dana yokk. alhamdulilah sëriñ bi nee dara du ci sikk te dana yokk kon nag nee na looloo moo tax mu ñëw fii ñëw nag di la siyaare si nag jataay bii nee na waraliwu ko ak jataay yi daan am ca Sarsara ca Mauritanie ak fépp ñu daan siyaare sëñ Tuubaa jàpp. baatin ba ca nekkoon ci tawféex ak ak ak ndimbalal sëñ Tuubaa loola moo tax tey mu yendu si fii te leer na ko ne mi ngi ci barab bi mi ngi ci sa jëmu ji te leer na ko ne it jataay bi mbégtam sëñ Modou Moussa ak sëñ Blaat la loolu loolu mu amul lu muy kon nag moo tax mu ànd nag ak ñim am ñu ñu wuute fu ñeneen ñi mënta ñëw waaye boo ko jamono laajoon ak itam yërëm gum la yërëm ci yéen i ji am ci moom ba mu wóor ko ne kon da nga ci daj lu ne sallaahu kon dëkk bépp dana fees ak mbooloo ndax bu soyoon ku mu am tey rek day ñëw fii tey waaw mu ngo kon nag nee na ba tax na ñii fi jot a teew di rakkam yii mu àndal ak taalibeem yii Cheikh Mamadou Fadal la ngi nii ak Serigne Cheikh ak ak Serigne ñu fekk fi seen wëllër wii di Serigne Abo mii moom sëñ Fallou Asujee sëñ Moussa mii foo ko mas a gisee sëñ Fallou Asujee ngi ci wetam wala sëñ Fallou Moussa Asujee la dimbaloon ñu bolo yeneen bokk yi fi te yi ànd ak moom yëpp mboolem Cheikh yi sëñ yi nga xam ne dañoo aju ci Daarul Xudus yëpp te Serigne Mbacke gi di seen ji tam moom moomee sëñ bi yor léppam jox ko ndigal mboolem ñooñu kenn ku ci nekk mi mi ngi fii ci biir mbooloo mi te ñoo ñëpp seen maam dañoo toppoon sëñ Touba waaye ñoom ñooy ñëpp di sëñ bi li wér te kenn ku nekk tey jii ku ko laajoon loo gën a bëgg mooy sëñ si dina am li bëgg sëñ Tuubaa da dara des am yal na la ko yàlla defal loolu da ñëpp moo ne seen xel yi waaye loolu na la ko defal defal ko Cheikh Moussa mi waaw nee na ma Moussa laq na ko ba noppi kon nag alhamdulilah kon nag nun noo ngi ci biiram rek jërëjëf nee na Cheikh Moussa laq na ko ba noppi kon nag kon nag Mbacke wax ji moom mën nañ koo tëng foofu nun taalib yi day sun xol sedd na guy sedd na seddin wu yéeme ndax lii ma Moussa def sëñ bi de noonu lay seereel ne wax nañ ne sëñ Moudou Moussa daana wax ne taalibi yi na ngeen ci def ndànk te di leen bàyyi xel ndax li bank seen tànk yi bankul seen xel yi li bank seen tànk yi seen xel yi waaye nun de noonu lay waatal ne suñ tànk yi nii bank ci kanamu Cheikh Moussa mi suñ xel mosuna woon mukk lu wuute ak lu tax nuy bank suñ tànk yi moom mi ci jëmam ji suñ xel yi mosunoo wax luy tax lu wuutee ak lu tax nuy bank suñ tànk yi wallaahi asim ak jub rek kon nak neena nga ñaanal ko li nga xane mom moy mandragam nga xane mom moom bëgg te kep kum andalit ñun ñepp fu jëm lool lay wax ci talib bi sax ci jub di doon talib seigne touba lool la bëgg waaw yaar yi dal neena na moo bëggam ak kum am nak sax ci jub di talib seigne touba neena seigne touba def na ko bëggal neena seigne touba def na la sa bëgg. la neena yit murid sadiq la waaw jaxna kon nak mo ngok jërëjëf nee na Sëñ Tuubaa def sëg bu murid sadiq nga kon nak Mbàkke loolu mo doon kaddu seigne bi sax ci jub jaar ci yoon wi ñi ko ànd moom mu awale leen ci ba fas ba ci yoon wa rek ba fas kenn bañ a wàcc yoon rek àgg fuñ jëm àgg fuñ jëm ne na rëkk rek te dara dun dog was jërë ngeen jëf kon nag wasalaamaaleykum wa rahmatullah na ñëpp baasi